alhamdulillahi bi اسمحوا jël ma باللهجة المحلية incha allah ñoo ngi wax tey fii ci daayira muxaddamatul xidma ci jumaay Touba na ne daal bureau bi nekk ci jumaa ji direction générale daayira muxaddamatul xidma nga xam ne ñoom la sëriñ jàg ci aju lépp comme ni mu leen dénkee ñuy saytu yu bare bare ci dëkk bi nga xam ne ñëpp ko bokk yu bari lu bari barab yi ak lu bare bare loo xam ne ku leen xam-xam na ko ak seen taxawaay yu rafet Euh, ngeen am gan gu màgg tey di ganug sëriñ bi Cheikh Mamadou Mountakha sunu mbokk mu baax mi mm, ñu gën koo xam ci Cheikh Mawlud doom ci Cheikh Ahmad Ibn Abdul Aziz baayam nekkoon borom xam-xam bu mag nekkoon ca Hijaas ak eh, Arabie Saoudite ba yàlla dogal moom mi foofu la juddoo baayam daf ko mu fa dëkkoon baayam ci borom xam-xam yu mag yi fa nekkoon nag lool moom mi ba mu fa juddoo mu wéyal loolu yàlla dogal it muy ku bëgg tasawuf nekk ci do daa doxaat yu mag yi di ku bare xam-xam lool it lool lool moom ko jaxasoo moom xam. jàng lool foofa ci Hijaaz euh, nekk ku yaatu ginnaaw ci àdduna si yëpp Amérique parce que taalibeem bi mu àndal Soudan la kee jóge Guinée ak ñu bëree bëri ñoo xam ne xam naa leen am na zawiya yu mag li gën a yéemu ci diggante ci Makka ak Madina fu ci nekk am na ko fa bu mag sax dem naa bi nekk Makka mu yéem ma lool li ci gën a neex boobu aj makk la mooy gii ko jiitu euh, kilifa yu mag xamale maak moom mu yónnee ci man ay taalibeem foofa ay saoudien ne leen dafa bëgg ñu ñëw fa waaye naa ko tànnal ci waa kër Serigne Touba yi murid yi dafa bëgg ñu xool genn guddi ñëw ci zawiyaam bi bu ñëwee jàngal ko fa leen ci xasaayiti sëñ bi mu reerandoog ñoom lu yàgg xam nga ak geeg ni muy xate loolu boobu dafa jafe dafa xat comme man maa ngi doon maa ngi liggéey ci mission bi man la woon gën a yomb moo tax ma dem faak ay benn benn bañ demee foofa yéemu loolu ndeysaan mu wax ma lu bari ci sëñ bi wax ma it fi mu ko xamee muy sëriñam bi ko doon jàngal Muxtaar bun Xamidoon Muxtaar bun Xamidoon xam ngeen ko ku miinanteeg waa Touba waaye na sëñ Tuubaa lu baree baree bari ak njaboot gi sax waaye yooyu ngeen di dégg wa ma anta illaa xaamidun wabnu xaamid wa ma ana illaa xaamidun wabnu xaamidi wa ma huwa illaa saalihun wabnu saalihi sëriñam boobu ma ko waaye waaye na doom njabootu sëñ Tuubaa gi lool ku jox soonu sëñ Tuubaa jàpp naa ne moom ci la xamee sëñ bi moom waaye nag yéem na ko xam naa ne sëñ bi yéem na ko jéggi na dayo bi ma waxtaan ak moom laa ko xam am na ci jàngat yu kawe kawe yoo xam ne nii dafa mel ne ñun àggaguñ ci gis-gisam ci sëñ bi moom war na ko ñun àggaguñ ci xam naa bëgg nañ kum ci liggéeyal ñor na ko lool it ndeysaan jàppal ne tukkeem bi fii ci réew mi xat na waaye doonte xam ngeen sëñ bu mag bi dafa genn dafa dem Poroxaan waaye moom mu ne daal dëgg-dëgg bëgg naa ñëw fii bokk na ci li nga xam ne moo ko indi ci ci ci ci Afrique waxuma la sax Sénégal moo tax bi sëñ bi déggee rafetlu ko lool nekkoon nekk foofu moom ab këram la na fa dem boole kook ñu tedd ñi ko booleel man mii sëñ Chane bu doomam sëñ Ahmadul Badawi ak ñu koy jàppale sëriñ Saam sëñ Bakki Abdourahmane boole kooku daayira isbu tarxiya it ñooñu noonu benn bis ñoom laa woowandoo mooy kër ki sëñ bi jóge dem Porokhane dama ko ci ne woo ko wax ni mu ko bëgg népp ne nañ ko yóbbu fépp ca fexe nag di jokkoo ak moom ndax ku mel noonu kat dëgg-dëgg nag moom lañ soxla kon kooku mooy suñu gan moo ñu seet ci tey euh, jërëjëf Cheikh Ahmad nuridu ataytuhum nubza an ziyaara naa daa alaaqatikum bi Cheikh al Xadim wa an tabaan xidmatika li bayti tasawuf bi sifa amma وخدمتك أيضا للشيخ الخديم بصفة خاصة أنا استفدت كثيرا منك ورويت كثير الكثير من أخبار الشيخ الخديم عنكم وفي في أطيب البقاع في مكة المكرمة شرحت لهم باختصار ku baax a baax la it mu ngi def jafe yu baax yu bare bari ci àdduna si ñun ñu doon jàngee Mauritanie xam nañ ko am na fa tey bibliothèque bu fa gën a mag boo xam ne ñu koy tuddee maktabatul irfan ñoom ñoo ko fa def moom moo ko def ngir yàlla yi rëy na loolu daanaka téere bu la ci àdduna ma nga yàlla ngir sàkkut xam-xam la ko may boo demee ak li mu war a àndal lépp xaw naa niroog lu bari li ñu doon wan fee léegi mooy lu mu war a àndal rek fu ñu liire fu ñuy wax ay waxtaanukaay ca nañ ko jënd dafa gën a seer ci dëkk ba def ko noonu ngir yàlla am na yéen it xam naa ne ma def ko fu bari bari ci àdduna si surtout fii euh, am na gis-gis yu kawe kawe daal loolu ñu maktabtul fan bu ngeen fa demee da ngeen ko fekk maa ngi liir rek ci bi fan yi am na am na nuñ ko beesal guñ ko def dafa mel ne am na dafa bëgg a dugal genre maktaba raqmiya kawe lañ ci ñàkk bari na lool lool lool lool ñoom moom moo bàyyam ko tàmbaloon moom moo ko àggale te it ngir yàlla noonu rek nga fay liggéey sax ñoom ñoo leen di fay kon daal ay jéegoom rafet na lool ñu dugg ci lislaam ci moom bari na jaare ci moom ci àdduna si yëpp Amérique fu baree bari nga xam ne fa rek kon moom mooy gan gi nga xam ne moom la sëñ bi am tey fa cheikh eh, hay idaaratul masjid tuaraf bi daairatu muqaddamatul xidma muqaddamatul xidma tashmal ismul xidma zaaniyan aydan ism kitaab min kutubi cheikh al xadim muqaddamatul xidma fi salaati ala nabi rahma wa hadi daaira mukallafa bi idaarati almasjid masjid aljamia wa aydan mumkin an nakul bi annaha mukallafa bi jamii aljawaamic walmasajid fi tuuba li anna laha dawr tumayiz بالإشراف إشراف نعم إشراف عن بعد كتدريب المؤذنين وكتدريب بعض الأئمة إلقاء محاضرات إلقاء دروس وتوعية الناس wa ishraaf ala al maqbara wa ma ila dalika wa kathir min al umur wa baad min al umur al aama التي تتبع الخلاف العمل للطريقة المريدية فترحب بك في بيت الله تعالى في المسجد ويطلب منكم على كل حال كلمة حيث كما أتاح لكم إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط الله المستقيم الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعجبني هذا الاسم دائرة المسجد وتذكرت الرمزية فيه وهي دائرة الأولياء التي هي بالنسبة للظاهر هي تقابل الظاهر من حيث الباطن من حيث أنها هي محل نظر الله من عباده وبما أن المسجد بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فالمسجد هو محل الولاية ومحل الأولياء والأولياء هم المتنافسون على الصف الأول ظاهرا أو باطنا الظاهر التنافس على الصف الأول في المسجد وفي الباطن التنافس على الصديقية لأنها هي الصف الأول بعد الأنبياء أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فالذين أنعم الله عليهم بالقيام بهذه الدائرة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وهم مرفوعون في كل حال في بيوت أذن الله أن ترفع فهذه البيوت التي أذن الله أن ترفع يرفع خادمها ورافعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ف ويشهد للمؤذن ما بلغ صوته فهنيئا لهم في خدمة هذا المسجد وهنيئا لهم في خدمة أحب البقاع إلى الله وهذا منهج الأنبياء والمرسلين فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده وبيوته حجراته صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد ولها باب يفتح على المسجد معناها أن أول مؤسسة تهتم بها الأمة وتخرج ورثة الأنبياء هي مؤسسة المسجد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من الراكعين الساجدين وأن يخرج من هذا المسجد العلماء العاملين والمصلين القانتين الذين يعبدون الله خوفا وطمعا غدوا ورواحا ويستعينون بشيء من الدلجة فجزاكم الله خيرا واعلموا أنكم بهذه الخدمة نبتم عن جميع الأمة وأن المسجد هو قلب الأمة فإذا صلح المسجد صلح سائر الجسد فوفقكم الله وثبتكم سدد خطاكم وأوضح لكم معالم الطريق بالاقتداء بالشيخ الخديم وبأولياء الله الصالحين وخلفائه السائرين على الهدى إلى يوم الدين حفظكم الله ورعاكم